asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 22 octobre 2019 ñu ñëw ci ci yëglekaay yi mu mel ni ki nag sunu lamb la tey journal record Leewtoo point TV ba ca Lutte TV fi ñu xëy jëm nag wala sànni wi wennul sànn la ki ko sànni mooy Pape Abdou Fall ba mu ko sànnee nag la mu jàpp mooy ki nga xam ne moo di Papa Sow ak Siteu loola daal moom la jàpp mu mel ni ki nag yëglikaay bi di suñu làmb day nee na soog bu njëkk nag ci saison bi ki ko décroché mooy président des promoteurs Pape Abdou Fall borom paf production yëglikaay bi di su lamb loolu la xëy tey wax ñu ko mu mel ni ki nag kon combat ba daal journal ba nee na mu ngay tourné ci diggante entre juróom-ñett fukki million daal boo bëggee dégg dëgg daa mel ni kon moo génn combat booba door na mën a taxaw yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu waaye fa nga xam ne nii tamit moom moo di ci record itam yëglikaay boobu itam ñëw na de won ni pa Abdou Fall père ba ak ki nga xam ne nii day moo di per Max Mbargane mel ni ki foofa itam combat ba lañ fay waxtaanee combat ba daal taxaw na ka ko taxawal Pape Abdou Fall mu mel ni ki nag combat ba day balaa ko Pape Abdou taxaw am na ko ko bëggoon muy Fallou Ndiaye Fallou nag bëggoon na koy weer waaye ba nga xam ne daal Pape Abdou Fall taxaw na ne ko dama bëgg combat bi daal Fall dana ko jëlal mu ngi noonu ndax nag yaay sama mag daal di ko taxaw sax far mu far taxawal combat ba ci diir bu gàtta gàtta gàtt ci ay waxtu record a xëy ñëw waxal ñu mel lu mel ni ki noonu mel ni ki kon jëf jëf Fallou Ndiaye def daal yëg li kaay yu démb day ñëpp a ngi ko doon rafetlu fa nga xam ne fa la ñu daje woon waaye ki nga xam ne nii day moom moo di sëtta yëg bi record nee na la moo encaissé daa xam ni moo ëpp la nga xam ne moom la Papa Sow encaissé record xëy dina ko wax si tey itam mu nga fa nga xam ne mooy ca États-Unis Papa moom naka la combat ba taxaw mu demali fa nga xam ne moo di Espagne waaye am na leen loo xam ne record wax nañu ko mooy ñoom ñaar ku ci ne yaa ngi ci defet ak at moo xam ne bëriwu ko muy année balance record xëy ñëw wax ñu loolu mu mel ni ki tamit fi nga xam ne nii day moom moo di ca Lutte TV ñu ngi xamal ne combat ba daal daa mel ni kon mois de mars ko fas yéenee bëre mu mel ni kii daal fi mu nekk nii day boo bëggee dégg dégg kon combat ba leer na nañ waaye record wax nañu ñaari mbër ku ci nekk de sa palmarès ñëw na ci Siteu nga ca onze victoire quatre défaites Papa Sow itam day boo bëggee dégg dégg moom vingt victoire la am ak lii nga xam ne moo di huit défaites record a ñu ko wax waaye Siteu moom mu ngay wax ci record daal ne nañ leer ba leer day Papa Sow moom man muy moom ak ku mu ci mënoon doon man moom damaa mas a jatu nib soccet taxaw daal pare laa mas a def Siteu xëy di wax loolu ñu ne ko papa mu ne papa moom ku ma joxub cër la man Siteu ndax nag image ak itam palmarès am maanaam parcours ba mu def ci làmb moo tax jox na ko cër lool waaye nag du tere day combat bi moom day saf ba yegg ca sap papa itam nee na ko loolu moom dëgg nga wax de li leer ba leer sama digganteeg yow moom ak yow yomb munu caa am ndax li ko waral at yi nga xam ne wala at mi nu toog bëriwunu ko ba ca des mooy ku ci ne maag yow ci defet nga tëdd moo tax Siteu moom wala Papa Sow moom jàpp na ne digganteem ak Siteu moom itam du mën a yomb déedéet yomb du ca am waaye ki nga xam ne nii ba tey mooy Pa Abdou Fall day mu ngay leeral de ca combat bi ba tey daal nee na moom daal combat bi ca Leewtoo point net ci ay waxtu yu néew la ko dox mu taxaw wax na ko fa nga xam ne tamit mooy ca Leewtoo TV loolu yëglikaay yi ñoo xëy tey ñëw wax ñu ko mel ni kon li leer ba leer daal diggante Siteu ak Papa moom taxaw na loolaa am waaye keneen koo xam ne nii moom mooy dugul moteur yëglikaay bi daa ñëw ci moom moom sunu làmb nee na boo bëggee dégg-dégg day mu ngi wane boppam bu baax a baax a baax a baax moom dugul moteur ndax nag daal fi mu nekk nii day fa mu taxaw ak la muy wane leer na de keneen koo xam ne moom la mu bëgg a wane lu leer naññ la muy Ibou seen ñu naan ko petit petit production moom moo ko jiite ginnaaw nag ba mu amee ay combat ndaw yoo xam ne jotagu na koo taxawal mu toll ci ñett daal moom am wala bëgg-bëggam daal leer ba leer de tëgg yeneen combat yoo xam ne sax yu mag a mag la ba ca VIP daal mu ngi ci am xelam moom Petit Production moo xëy tey di wax lool combat yi mu taxawal nag bokk na ca ki nga xam ne nii day moom moo di jéggi siraat tekki jël dem xeeru ngor numéro de ak booy yëmbal mu mel ni ki tamit ak ki nga xam ne nii day mooy réparé ak yankaaw mel ni ki daal moom fi mu nekk nii moom xale la ñëw na itam bëgg a wane boppam bu baax a baax a baax ñii moom seenu bilaa ci la yëglekaay bi ni suñu làmb ñëw muy waa école de lutte Papa Kane ba ci Guédiawaye dix combats six victoires quatre défaites mel ni ki nag écrit booba moom doxin wa xaw naa am nu mu demee ci yenn mbir ya fa nekk bu dee ki nga xam ne nii day moo di Pape Thiam la moom boo bëggee dégg-dégg combat ba nga xam ne moom la séqoon ak caatu yof moom recours moo yàq ay mbiram ndax nag ci géew ba moom lañ joxoon ndam la waaye bañ demee nag recours dugg jógee yoof dem ca seen seeba daal ba recours ba génnee dañoo xamal Pape Thiam ne ko li leer ba leer daanu nga combat ba da nga koo ñàkk ka nga xam ne nag moom mooy réparé rek ki marle moom moom wane na boppam bu baax a baax a a baax waaye mag ja tamit marle moom dafa ñàkk ci diggante ak ki nga xam ne moo di booy bool mag si crise moom dafa daanu daan loolu yëglekaay bi moo xëy wax ñu ko ñaari gabar ya moom moo xam gabar sing moom mag la ma ak gabar sing numéro deux ba ñoom des leen a gisul ak ay bët Iba Dieng ma leen yor nag daa mel ni bilan booba moom xaw na caa gis boppam wala boog mbégte xaw na ko caa am yëglekaay bi moo xëy ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne fi mu nekk nii day yëglikaay ñëw nañ ci mooy raw bi nga xam ne door dóoraat rawoon na ko daaw suñu làmb xëy wax ñu ko mu ne ren day daa mel ni moom ah est ce que dina demee noonu wala est ce que kon du am keneen koo xam ne mooy jël li nga xam ne moo di place am bu demee tamit ci Leewtoo point net daal jox nañ ñu ab xibaar boo xam ne boo xam ne la day bu rëy rëy la ndax nag Abdou Badji mi ngeen xam directeur technique national ba day Leewtoo point net nee nañu moom daal démissionné def na ko ca poste ba nga xam ne moom la yoroon ay at di ko doxal yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu loolu waaye dañuy dellu ba tey sunu làmb ndax nag ki nga xam ne ni moo di Ibou Ndiaye ubbali day nee na lu leer la bëgg li muy wax lu leer nàññ la rëg-rëg moo ko dàq bëri moom ne na dàkkuru ci tey suba waxi noppi te nee na at ñu nu génne moom moo doon a nekk sax meilleur lutteur bi ndax nag li mu def kenn defu ko benn defet bi mu am ka ko koy wala boog la ko jota dal ka ko ko yóbbee kenn la dong moo di ordinateur defet booba nag metti na ko daan ba ko ordinateur daan te nee na fam ko ko defee moo tax mu naqari ko mu di dëkkam di joof yor kóbbali moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu waaye li leer ba leer daal jàpp leen président des promoteurs Pa Abdou Fall ñëw na daal di indi Papa Sow setta kon ana ñi des ana Pape Colis Faye ana Fallou Ndiaye ana Dieye seen ana ki nga xam ne nii moom moo di Assane Ndiaye ak kan Gaston Mbengue Baye Ndiaye ak ki nga xam ne nii moom moo di Sam Production ak ñeneen ak ñeneen su ma koy lim duma fi jóg kon gaa yi soxla nañ combat yu mag a mag yi gaaw leen na gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw ndax nag fi mu nekk nii tey ah yaram yi daa mel ni mu ngi bëgg a tàng te nag amateurs yi soxla nañ combat VIP de Fall musaa borom wakaam ak yoof tey moo nekkoon ci film bi mbokk waa Leewtoo TV leen ni leen këram leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si euh, jàngatu arène bi Babacar gisaat ngeen ko ñëw na euh, dafa jaaro ak yaay si soxna si léegi ñëwaat na nag pour mbokk internet yi Babacar maa ngi nuyu <laughs> di la maa ngi lay fay di la nuyu di la di nuyu internautes yëpp waaw comme ni niñ ko xamee rek di nuyu ñëpp comme ni niñ ko waxee dañu demoon Touba waaw wuyu ji woote suñ boobu suñ bu tedd bi ci Amadou Bamba Xaadimu su di ñaan xalifaam ñun Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko xam nga di nuyu ñëpp daal si màggal gi parce que du mën a ñàkk jóge fa nag jaaroon dëkk ba tamit xoolaale njaboot gi soxna si loolu tamit yaakaar naa diine nangu na ko daal waaw loolu lañ defoon waaw loolu am na solo Babacar ni ñoo nag si journaux yi te nag journaux yi ñoom ñëpp a xëy euh, di wax euh, combat bi nga xam ne moom la Pape Abdou taxawal démb sunu làmb euh, Leewtoo TV Leewtoo point net ak record ñëpp ñëwaat nañu si signature contrat bi doxoon si diggante Papa ak ki nga xam ne mooy si Siteu nee nañu nag mooy combat bu gën a moom combat bu mag bu njëkk gum si saison bi Babacar loolu la sunu làmb wax tey. waaw loolu am saison bi moom combat bu mag bu njëkk goo taxaw grande affiche wax dëgg yàlla yàlla mooy Siteu ak Papa actuellement ah loolu nag li ñu siy jàngate mooy encore une fois nuyuwaat Pa Abdou Fall mm, encouragé ko ci courage am parce que dafa am loo xam ne ni soo amul courage doo ko def parce que doxoon na combat ba ñu war a fisale muy Ama ak Tafatine bañ ne saye bañ annoncé ko yaa ngi ba joxe sec des wala boog joxe avance des dernier moment waa kër Ama rejeté taxul mu bàyyi mu xam ne li olof yi di wax rek bu yoon jeexul waaxu si lu jeex mu continuer ba tey mu xeex taxawal combat boo xam ne tamit boob ba tey ñu ngi ciy wax war naa taxaw war naa tax am nañu ko doon dox sottiwul ba yàlla def moom mu sottee ci moom te defe naa combat bu amateur yi woon la kon mu nekk ginnaawam nooy ba nga xam ne nii promoteurs yi des yëpp dinañ mën a ñëw décrocher neen combat yi moom itam li mu war a décrocher waat mu décrocher waat ko parce que fi mu nekk nii soxla nañ combat yëpp moo xam combat VIP la moo xam combat yu ndaw yi la combat espoir yi mais daal ñu ngi ñaanal promoteurs yëpp ñu topp ci tracé bi Babacar ci sunu laam aussi mu ngi xamal ne naam démb teew fa woon mais Fallou Ndiaye euh, amoon na fa place bu yaatu démb si signature bi ndax kii di Pape Abdou Fall nee na euh, Fallou Ndiaye moo nekkoon si combat bi depuis daaw mais bu mu xamee ni moom bëgg na combat bi daf ko woo na ko yaay sama président yaay sama grand yaay sama mag jëlal combat bi man loo bëgg rek du ma ko xëccoog yow nee na si ñaari waxtu dong la taxawal combat bi muy tamit loo xam ni démb ñi fa nekkoon yëpp ni ngi koy magnifier ki rawatina ki nga xam ne mooy Pape waaw Youssou la dana jëf ju baax am na fay jëf ju bon it am na fay yàlla nañu yàlla musal ci jëf ju bon nag te ñuy jëf-jëf ju baax yaakaar naa am loolu mooy li gën Fallou Ndiaye promoteur la Pa Abdou Fall di magam ñu am ay relation pour mën yu rafet rafet ba en même temps mu nekk président kon defe naa bu fekkente ne Fallou nekkoon na ci combat bi ay weer ko dox yàlla dogalul mu taxawee ci loxoom ñu toog ba Pa Abdou Fall soxla ko wax ko ko mu ne ko demal Pa Abdou Fall dem ci heure bu gàtt combat bi taxaw kon defe naa Fallou loolu mu def tamit ah ku ko joxo ku ko waxul tamit joxoñ ko du ñu mën a def lu dul loolu rafetlu ko ndax ay nit moom comme les olof yi wax rek ñu bokkuteen ñooy laxasoo ay goj mais na ngeen fexe ba bu ngeen laxas seeni goj laxasoo rek ngeen làqar ci ko ci jàmm coow bañ a am xuloo bañ am lépp rafet defe naa ne loolu moo war a am ci promoteur yi parce que ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay donte dañuy business mais tamit du tere pour man relation bi nga xam ne moom moo war a am entre nit ak nit ñu di ko sàmm di ko rafetal parce que ñoom ñëpp ay frère lañu ñoo bokk Sénégal te defe naa kenn ci guru yi ne sa morom mu nekk ci safaan ci lu ma yaakaar yaa ngi dégg kon yaakaar naa daal fal loolu mu def ñëpp rafetlu nañ ko ko ah loolu vraiment tamit ku amul xolu partage doo ko def kon félicitation Fallou Ndiaye Babacar tamit journal euh, bi nga xam tamit record ñëwaat na aussi signature du contrat boobu mais nag moom dafa am feneen fu mu génn mooy am dafa woo ñaari mbër yi ki nga xam ni mooy Papa Sow mi ngi woon si yoonu Espagne bi euh, laaj na ko xalaatam bu combat bi taxawee Papa Sow nee na ko xam naa ni combat bu metti laa am waaye tamit naa si def sama kémti laa kantan pour que mu mun a signer sama retour woo na tamit Siteu bi nga xam ne depuis États-Unis moom nee na tarkitan bi dina ñëwaat borom àllu paya sitta waaw moom mu ngi ba États-Unis wax na waaw moom li mu xamle comme loolu lu leer nañu la kani Papa Sow ku mu respecté la par rapport ak euh, maanaam image am par rapport ak palmarès yaa ngi dégg xam ne tamit bu doon ak ku mu wonoon doon moom pare na et puis mooy yoon si tax xale la vraiment am na lu mu wane si làmb tey ba tax mu toll ci niveau bii mu toll yaakaar naa loolu nag yaafus du ko may nit liggéey koy may nit kon yaakaar naa itam loolu mu seeral Papa Sow tamit defe naa ne adversité lu mu métti métti du tere nga waxal sa waay li nga xam si moom ci ay baax baax mais nag soit bi tëjee barrière yi moom ku yi day jóg galgal yeeg caxabal yeeg mboot yeeg griñaan yeeg yëpp day am pour ku nekk ut ndam yóbbu sa kër loolu war a am Papa Sow tamit yaakaar naa ne loolu mu waxit lu am la que ni combat bi day metti du yomb si ñoom ñaar parce que ay année balance te ku ah ba yaakaar naa ne loolu nag moom noonu mu ko xamee defe naa noonu la demee ci defet lañ ne na ci moo ko Siteu yaakaar fi mu nekk nii li ñu bokkule bëri na lool lool lool moo taxit loolu papa wax lu am na de combat ba yomb si ñoom ñaar waaye nag du génn cadre sport du génn Sénégal ñu ngi ñaan rek ñu yegg ci ñu dugg comme ni ñu ci duggee ci bismillah rahmaani rahim ni yàlla nañ ci yegg ak alhamdulilahi rabbil alamin ñu bëree ko ci jàmm que le meilleur su fekkee ni que journal Record tamit ñëwaat na toujours ci combat bi su fekkee ni Max Margar moom teewal na fa ki nga xam ne mooy Siteu ak am autorisation waa écurie Lansar yëpp journal aussi mi ngi xamal ni euh, waa Fass yëguñu combat bi loolu la ñu euh, Abou xamal ci ci journal Record maanaam recours moo bind ne waa Lamsaar moom seen manaat di Max Mbargane ñëw na ci turu écrit ba père ba nag moo ñëw mais ñëwul bokk wala boog ñëw ci turu écrit face. waaw daal si lu ñu jot see information lu lu Abou Ndour bind nee na ay selon ses sources daal face yëgul yëgul combat bi. waaw loolu moo ko bind waaw loolu day ah ñun euh, liñ ci mën a xam daal mooy face écrit bu mag la Papa Sow ku tudd écrit face tudd Papa ndax yaakaar naa ne ci lu ma dégg wala ci ay gëstu Papa boppam biir face la juddoo. yaa ngi dégg kon moom doomu faas piir la papam nekkoon compagnon mbay gi ñu daan ànd ba tey lii am yépp am kon yaakaar naa daal bu loolu amee ah dañ ne nar rek ñoom en tant que ay kilifa ñu xool nu ñuy tooge waxtaan pour mën a gérer seen situation parce que itam euh, dañ ne lu kenn man ñaar ko ko dàq te mbooloo mooy doole yaa ngi dégg kon li ñu leen di wax daal mooy que ni nañu waxtaan rek parce que àddina moom moo tëddee noonu ah lépp waxtaan a koy yeggali mais fu waxtaan am rek réeroo mën na fa bañ a am waaw. Babacar tam jeexale nag si Leewtoo TV si wàllu lom euh, làmb jooj noonu euh, démb bu nu laajee Père Ba nag lu tax euh, Max Marga ñëw en tant que manager Siteu yow nga ñëw en tant que agent te Cheikh Ndiaye bi nga xam ni mooy manager Papa Sow teewul moom daal li mu joxe comme explication mooy mooy woo nañ ko waaye nee na dafa mel ni que Cheikh Ndiaye mi ngi si bawal donc moo tax mënul teew waaye neen lépp benn la sotti seeg def si la. waa père ba day wax dëgg yàlla kilifa la si Papa Sow waaye kilifa li ci li ñu xam parce que dañ koy gis biir écrit face des fois yaa ngi dégg ci ay bisu face kon yaakaar naa bu fekkente ne la mënaat si Cheikh Ndiaye comme ni mag si nekk mënaat sa moom mu waroon teew nekkul Dakar père ba teewal ko ah xëy na loolu lu ñu waxtaanee ba déggoo la waa ay mag nag su suñu toogee ba waxtaan ba déggoo ci benn kàddu moom la ñuy mën mooy sàmmal leen seen ay wax rek Babacar naan jeexal nag euh, combat boobu ñëw nag si yeneen info yoo xam ñëw na nekk na si sunu laam sunu laam daal ñëw na ak double moteur nee na double moteur ginnaaw bu mu tëree moroomam yëpp nee ñu nag soo moytuwul nag yeneen espoir yu gën a diis si si seen si seen kaw la jëm. waaw loolu de moo am parce que barina ba mbër yu mu daan ba sax daan nañu xam ni ñoo ko mag daaw muy fëgale ak naaru sogas kon defe naa fi mu nekk nii itam fa muy jëm ah espoir yi day diis moom du mën a ñàkk moom itam xale la nekk nekk rëbës vraiment yàggul si làmb mais tey fi mu nekk nii moom double moteur am na lu mu jotagoo marqué si làmb di xale boo xam ne ni espoir la ne ci ay loxo kon li ñuy wax daal mooy que ni rek làmb moom moo demee noonu quoi liggéey daal moo ci am wala àddina si boppam daal loo bëgg a moom na la jaral rek nga di ca ñi nga xam ne ñoom làmb dañ nañ koy jëriñoo pare sonn na si mooy école de lutte Papa Kane nañu daal def nañu bilan bu baax ndax am nañu 6 victoire ak 4 défaites. waaw loolu day tane na waaye nag combat yi moom bëriwul boo xoolee waaye nag écurie yooyu yëpp dafa nekk làmb ji boo xoolee daaw écurie yi bëriwul écurie yi ci bëree combat yu bëri bëriwul. yaa ngi dégg yaakaar naa ne benn écurie boobu nekk Tëngéej. muy yi ñoom am ñaaw boobu ñoom ñoo ci bari yenn combat yu bëree bëri yi mais tey lii école de Pape Kane an tamit tane na mais gis nañ ko mel ni Marley di seen tête de dafa ñàkk combat am rakkam réparé moom gagné na euh, ki nga xam ne mooy Pape Thiam amoon na ndam ci kéew bi mais bi waa Yoff recouré digganteem ak Caatu Yoff dañu jot ci seen ndam mu ñàkk combat am moom Pape Thiam ñaari gabar yi muy gabar sing numéro un ak deux ba yëpp gisuñu leen waaw loolu nag moo a yokkaat liggéey bi rek ne que affaire yi moom saison ngi nii ubbi na ku ci nekk na nga daasaat say nganaay pour nga nga mën a demaat ci guerre bu baax a baax a baax. Eh, sunu laam ñëw na ak euh, def benn interview bu ndaw ak ki nga xam ne mooy Ibou seen Ibou Sène nag soo leen ko déggee mooy bu bees bu ñëw si làmb ji moom ginnaaw mu taxawalee daal ay combat espoir nee na daal ambition mooy balaa saison bi jeex mu taxawal ay combat VIP muy lu nag nouvelle bu neex si VIP ndax VIP ba léegi dégguñu ay com euh, ay combat waaw Ibou Sène di petit production ñu koy nuyu di ko moom suñu rakk la parce que yàlla def na ñoo bokk fu ñu dëkk mën naa ne parce que ay bool bool lañu comme ni mu ko xamee mu nga dëkk-dëkk bu ñuy wax Ngoy Aliou Sylla ñu dëkk ak yaay kon dëkk yooyu sorantewut lépp ci département de Bambey la bu ñëwee tamit indi loolu fas yéene taxawal na ay combat xale bëgg nag dugg ca combat yu mag a mag du ñu def la lu ñaanal ko yàlla rek mu réussir ko ndaxte nit ki moom àddina lépp ambition la waaw da ngay jéem dara rek boo jéemul dara doo def dara kon jéem boobu muy jéem yàlla na ko yàlla dimbali ba mu réussir ko mais lépp rek nay maanaam daal nay nekk loo xam ne daal nay ànd ak waxtaan ak ñi nga war a waxtaanal bañ a yàkkamti ndax rek euh, dégg naa la sëñ Fall waxoon tepp tepp moo gën yuréet Babacar suñu jógee nag suñu lamb nañuy dem ba Leewtoo point net Leewtoo mbay net li ñu xamal ni am na benn info bu boo xam ni xëy na amaana denc nañ ko depuis un mois mais démb daal la ñu gëstu ba mu leer ba ñu xamal ni daal que ki nga xam ne mooy Abdou Badji joxe na démission depuis le mois de septembre mais nag CNG ba léegi tontoogu ko jëm nañu jëm na woon nag Abdou Badji mais démb ba léegi bugg jël benn appel téléphonique journaliste yi. ah waa Abdou Badji day bu ñu nee démissionné ñu jàngate ko ci Leewtoo point net waa xibaar day balaa nga koy siwal moom. donc na leer nañ parce que lépp looy wax di ko jox ay nit rek muy information te jàppal ne ci nit ngay wax jox ko ay nit ñu war ko jël ay information loolu war na si na koy gëstu ba mu tege ci aw yoon ba leer nga door ko mën a génne mais tâtonnement bu du wóorul wóorul comme noonu ngeen ko defe tamit lu professionnel la lu tege la ci yoon Abdou Badji nag moo nekkoon directeur technique national comme ni ko xamee ñu xëy jàng ne démissionné na ah mais ñi ko yilif tontooguñ ko ah ñu bàyyi rek xaar ba xam luñ koy tontu waaye tamit vraiment moom it yàgg na foofu fa liggéey te yaakaar naa itam indi def na fa ay liggéey yu ama am solo daal ci wàllum lit bi nga xam ne moom la am moo Sénégal si journal record aussi amunoo mi ngi ñuy xamal ne que xëy na ki ni kii nga xam ne mooy Sitor mu nekk président commission des arbitres wala xalifa Sow bi fi nekkoon tamit président commission des arbitres ne ñu mu am mun na am ñoom noo koy remplacer ñaar yooyu kenn moo ko si remplacer. waaw loolu de lu mën a nekk la ndax ñooñu tamit bu dee Sitor la macha allah mën nañ ni jeune la te tamit yaakaar naa ne. expérience moom fi mu nekk nii ci wàllum CNC ca côté yu mu am na ko bu baax a baax a baax xalifa tamit waxaale wuñ ko ndax moom defe naa gis nga fonction yi mu fi yore woon ba noonu yaakaar naa ñoom ñaar ku ci ne rek tey buñ la dànnee nga war ko remplacer ëllëg itam defe naa lu war a mën a valable lay doon waaw di ci profité wala di nuyu tamit commission arbitrale boobu parce que suñu ay soppe dafa ne mel ni ki ñoom Malick Ngom xam nga moom suñu xarit la suñu lépp la ak Dramé depuis duma ko fàtte ak ku mel ni Matar Diouf ak Mathieu ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. Babacar ñu jeexee nag si bëree simple kii nga xam ne mooy euh, Ibou Ndiaye Obali moom la suñu laam dalal tey waaye moom daal lu mu wax nee na jàpp ne ne moom rëg rëg gënu ko aay. te nee na tey jii tey su si saison bi nu génn li mu def si saison bi tey mun na mun na jàpp ne mu moo jël ordinateur topp si. waaw Obali day Reug Reug gënu koo aay loolu la wax moom ah waaw loolu moom desu ko ci jëlee ndax li tax desu ko ci jëlee mooy moom moo ko wax waxal boppam waaye nag am nañ droit ñun joxe suñu avis ak suñu gis-gis Reug Reug tey defe naa li simple bi lool ñi ko nangu ñi ko ko nangul bëri na actuellement at yi ñu génne nii li mu ci def ci ay preuve wane ko ci defe naa ne yaakaar naa gisuñu ko ko ci def bu ñuy wax nag ne li simple bi moo ci man xëy nit ñi foofu lañ koy teg parce que selon ci performance yi ngay wane rëg-rëg moo wane yooyu performance Ibou Ndiaye itam nekk na ci li simple mbër bi nga xam ne nii mu ngi wane boppam bu baax a baax ndax amateur yi soxla nañ ko ci ak ci léppam te itam macha allah mbër la a jaru ko li koy li ko wane li koy wane daal mooy ngeen sëgg bëre rek bu ngeen tàqalikoo ñu xam fan la mbir mi féete waaw ko loolu am na solo si kàddu yooyu leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay euh, Merso naan ko na jóg ak jàmm di nuyu ak sama doom euh, Mouhamed Diouf di nuyu Dadige di nuyu Astanine DG Brahma depuis Parcelles Assainies Chéri Khadija Diallo naan ko teraanga bi bëri na lool yàlla na loxo bi gën a wér nuyu euh, samay doom Mame Diarra Penda bébé Fallou bébé Rokhaya bébé Moussa ak Junior Eva Diallo aussi yaa ngi si biir Eh, eh, Aïda Diouf ak eh, Aïcha madame Niang aussi maa leen di nuyu Babacar. waa di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp man nag tey sama nuyoo ki ma koy ubbee mooy Serigne aboo Mbacke di doomu Serigne Cheikh Saliou Mbacke mi xalifa ab Cheikh Saliou ndax nag moo ñu dalaloon ci màggal Touba gi ca këram fa nga xam ne mooy arrêt Touba Njaareem ci côté héliport ba ma koy nuyu bu baax a baax. di nuyu ma madame Coy mi nga xam ne ci moom la mbir moomu jaar ak suñu dese Pape Thialis Faye mais sëñ Abo daal ñun am na lu mu ñu yokkaat ci suñu àddina maanaam ci nit ki ni mu war a amee ab yar ni mu war a amee ay teggin ni mu war a mën a nekke fonk li nga xam ne nii mooy diineem moo xam diine bu mu ci mën a doon kon sang boobu daal ñu ngi ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yaram waaye tamit di ñaanal li ko ñaanal tamit ki nga xam ne mooy sëriñ Jili Fata Fallilo moom tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax dem nañ ba Ndindi kër fekk ko fa ñaa ngi dégg di nuyu tamit ku mel ni Cheikh Ablaye Diop xaas màggal Touba gi daal vraiment sant nañ ci yàlla bu baax a baax wax gën nañ cee sant yàlla ñaaneel di ko fekkee at yu baree baree baree bëri di nuyu yàggamaar bi nga xam ne moom laa àndaloon ak Mansour liggéey bi metti woon na mais fexe nañ ba gérer ko di nuyu waa Touba yépp di nuyu ko mel ni ki tamit Awa Diop bu Balla gay numéro 2 ak Xaadim tamit bu Balla gay ñoom ñëpp depuis Touba ku ci ne jaarante nañu ak yow bégalante ak maanaam daal nuyu nañ ñëpp daal kontaan ak Waré Sarr waaw suñu yaay Waré Sarr tamit duñ ko fàtte di ko nuyu di ko ziar ndax dem nañ këram fa lañ fekk guy gi fa lañ ko jëlee mu dalal ñu dalal bu rafet moom tamit ca Touba di ko nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm mais tamit du nuy sama séeri ca Mauritanie ah ki nga xam ne nii moom moo di ah sama naar ba aasi jaaj maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax doctorat la doon def ci wàllum droit yàlla def mu réussir ko mu koy ñaanal yàlla nee ko yàlla da nga nekk procureur de la république Mauritanie aas yi maa ngi lay bëgg bu baax a baax di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak di nuyu aas aas tandi aas du ma ko fàtte mais aas nag affaire bi na gën a yokk waaw li ma jox baax na trop aas mais na gën a yokk fi mu nekk nii xam nga des école daa ubbi fourniture yi aas yooyu dañuy bëgg nga taxaw ci mais tamit du mën a ñàkk lu rey mbum dee ci olof a ko wax di ñaanal Real Madrid tey ci Ligue des Champions bi comme amaguñ ci ndam yàlla nañu gagné Galatasaray gagné bu rëy fële ci Turquie gis ngeen tey foofu laa xëyee mais tamit awa nekkoon fii ci kër gi maa koy ñaanal dafa am bébé bu góor tey la koy tudd ñu ngi koy ñaanal yàlla bébé boobu yàlla na gudd fan te wér ba ay waajuram fekkee njëriñam barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndey Kumba. ma ñaan tamit sama équipe